mbokk yi nga xamee ne ñoo safoo di seetaan seen télévision Tactic Info ñu leen nuyu di leen sant tey nag seen émission du dëgg du yoon daf leen indil benn mbir bi nga xamee ne mi ngi xewee fii ci Kër Massar benn doomu sëriñ bu mag xalifa ci benn tarixa moom moo jàpp jabar ji dóor ko dóor ko ba gaañ ko naam sax jabar ji dafa am moon ba am ñeenti weer loolu nag mi ngi xewee biñ ne gannaaw suba la gàmm mën euh, naam sax ni couple bu nekk day am ay rëq-rëq parfois parce que coow du ñàkk mën na am seen diggante waaye daal waa xam naa ni daal nu ko ndaw si tonto ak ni mu doxalee moom daal moom moo ko neexul ba mu jàpp ko dóor ko dóor ko dóor ko ba ndaw sa mujjee eh, jëlee si ay jafe-jafe yu metti ndax eh, bi mu ko jëlee dóor ko ba pare daf ko teg dam nag gàmmu moom bi mu demoo gàmmu ji après ndaw si moom fekk na da doon ko fa bàyyi mais da doon sañe bi daal bi muy génne si ko mu bari daal après si la dafa daal ay taxe ba génn kër mu génnee nag mu jël benn taxi taxi bu ma ko yóbbu hôpital principal bi mu demee hôpital principal nag médecin bi nga xamee ne ni médecin militaire la mu doon ko suivre médecin militaire bi moom bi mu gisee affaire yi daal daf ko laaj mbir mu nome mu expliqué ko loolu daal sama jëkkëram la doon joteel jëkkër nag door ko ba gaañ ko si biir loolu moom moo ko indil euh, deret yooyu nga xamee ne mi ngi doon ko génne léegi nag médecin bi moom bi loolu mbir bi amee moom mu woote waa section de recherche gendarmerie section de recherche ñëw enquête ndaw si moom mu porte plainte bi mbir bi amee nag euh, profession bu nekk nag docteur bi def nañ dem nañu ba sax ba dem di ko proposer ay mbirum xaalis waaye moom daal def ne mukk loolu daal du si dal parce que daal ñawteef bi egg na fi nga xamee ne daal euh, jaaxaloon na ko lool moom moo tax mbir mi nag euh, dem na ci yoon procureur bi def ko bi mu ñëwee premier jour bi ñu indi ko si kanam procureur procureur daf ko daf ko war mu demande moom retour de parquet dafa waroon taxawaat nag waaye daal mbir bi daal am na si der lu si laxtu Euh, dinañ si dinañ si gën a gëstuwaat fan yii di ñëw dinañ leen si wax lu gën a leer wasalaam ba beneen yoon